salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar allo salaamaaleykum maa ngi jëloon genre bu baax a baax aha waaw loolu kon tawfeex la ndax daanaka man daal maa ngi côté buntu Pikine donc li may def mooy damay jaar central équipement rek li ngeen ci bagage ak moo ñu ngi dem incha allah bu soobee yàlla بالخير والمفاز Sukhat équipement dafa centraliser lépp loo soxla ci équipement cuisine ci seen ndaje diine yu mag lu si mel ni màggal wala gàmmu benn bërëb rek sa aajo daal di faju central équipement di jox lépp luy taaral kër di bakkanal dund gi Central Équipement. Venez vous équiper à moindre coût. Nos prix défient toute concurrence. La qualité est notre credo. asalaamaaleykum <clears throat> wa rahmatullahi taala wa barakaatu Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir Mbacké di kàddug sëriñ bi jiite it liggéey bu rëy bii nga xam ne jullit yépp ñu ngi àndandoo fas ci yéene jàppale sëriñ Touba ci sant le ko boromam muy liggéey bu diis di liggéey bu rëy sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa jiital la ci nga ànd ko ak yoonu murit wépp diggante bokk yi ak njaboot gi ak taalibe yi loolu nag bi mu amee sab jigéen di sa xarit di kuy liggéeyal Sëriñ tubaa di liggéeyal maamam di soxna baali moom Sëriñ Suhaybu ñu gën koo miin ci soxna baali mun Muntaxa moom it mu taxawal liggéey bu rëy boo xam ne jàppale sëriñ bi ak liggéeyal Sëriñ Tuubaa moo ko tax a jóg jaarale ko ci buntam soxna jaaratullahi bu so muy fondation bu mag bii nga xam ne taxawal na ko di ci liggéeyal lislaam fondation boobu nag bi sëriñ bi tegee liggéey bi ci sa loxo tañ xam ne liggéey bu diis la ci lañ fas yéene àndandoo ak yow di la ci jàppale di ko def nag ay at yu weesu ci ginnaaw moo tax tey jii Cheikh Mahamadul Fadal mii di sa doom ànd ak sëriñ Muntaxa mii di sa doom ak sëriñ Jiili ak sëriñ Abo ak El Hadji Fallou Guèye mii sa El Hadji mii El Hadji Cheikh Diop kokki ñu ñëw ci turu fondation bi ak turu soxna si fas yéene joxlanteeg yow ay kàddu jotal la it kadduy canti fondation bi ak kadduy canti sëriñ bi soxna si loolu nag kaddu googu nag moom la sëriñ Cheikh Diop di yëkkati ci turu sëriñ fàllu waaye ci turu soxna Bali ak turu fondation bépp ñoo xam ne liggéey bii la sëriñ Mountakha di liggéeyloo bu ñu sañoon boo gestoo ci sa ndijoor gis leen boo gees ci sa càmmooñ gis leen boo xoolee ci sa kanam gis leen boo xoolee ci sa ginnaaw gis leen ndax xam na ne amut lenn loo ciy def lu weesu sàkku ci ngërëmul sëriñ Touba ak dàkk ci mbégum sëñ Muntaxa te loolu moom seen yitte jóp ci la ne moo tax kàddu gi dañ koy bàyyi ak alaaji Seex Jóob kokki mu ñëw jottali kàdduy fondation bi ak kàdduy soxna si bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ginnaaw bi ñu santee yàlla julli yonent bi sallallahu taala wa sallam ñi ngi wax asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatuhu yëkkati suñu kàddu kiituru sëriñ fàllu mbàkke mii toog suñu jëwrin yabal ñu fi ci fondation Soxna Baale Muntaxa Mbàkke man ak sëriñ Abo mi toog ak sëriñ Muntaxa ak sëriñ Jili ak mboolem membre fondation Soxna Baale Muntaxa Mbàkke ñu ñëw teewal ko fii yëkkati suñu kàddu ak suñu nuyoo bu gën a tëdd bu gën a sell bu gën rafet teg ko ci loxo suñu sëriñ sëriñ Basiiru Mbàkke di ko ziyaar di ko jox wàccuwaayam waaye di ko ñaanalit suñ borom dëgëral ko taxawal ko kàttanal ko ba liggéey bu rëy bi nga xam ne moom la yor liggéey bu Serigne Touba suñu borom may ko ci ndam may ko ci kàttan gu dëgër ndax ku ne xam ne moom sagub yoon wi la waaye sagub lislaam bépp la ndax ñëpp ñoo koy sagoo sëriñ bi du yoonu mu di rek moo lay sagoo waaye umma islamique bépp ñoo ne sago ñëpp naw nañ la ñëpp respecté nañ la ñëpp bëgg nañ la loolu lépp say jukkalo ak say qualité moo la ko may sëriñ bi ñu ngi lay ziar bu baax a baax ki turu soxna Baali Muntaxa di yeesalaat nag suñu ak taalibe ci yow di la yónnee it suñu nuyoo ak suñu ziar ak suñu laxasaay ak suñu yeesal suñu taalibe ki sëriñ Muntaxa xalif général des Mourides ndax tey yaa ko fi teegal ku ne xam na yaay sëriñ Touba fi jataay bi sëriñ bi nag tey li tax ñu teew fii defoon nañ ko daaw defoon ko daaw jéej muy fondation Soxna Baali Muntaxa fondation boobu ñuy wax di fondation Soxna Baale Mountakha dañuy tudd soxna si rek waaye fondation bi yow rek la waroon tudd ndax fondation bu amee ginnaaw yàlla sa jëmm moo tax mu am buñ ko taxawalee ba am kéetu fondation yow mii la Mbàkke da baax rek jiital soxna si di ko wax waaye lépp lu ci aju luñ ci def yow yaa ko def ndax ku ne xam na sa cofeel digganteem ak soxna si di ko jàppale moo tax nga xalaatal ko wutal ko fondation lépp yaa ko def Mbàkke lu ñu amee tey ci fondation bi lépp yow la moo tax soxna si ne nañ la sant gërëm la ndax yow bëggoo la sant bëggoo la gërëm waaye dafa baax nag tey bu ñu ñëwee toog ci bis bi nga xam ne sa bisu maam la nga yor liggéey bi dafay baax ñëw gaaral la fi ñu toll ci liggéey bi waaye init adiya bi nga xam ne fondation moo ko am war la ko jox ndax lépp lu ñu am rek gannaaw yàlla yow la Mbàkke moo tax tey soxna baali ne ki ndigalu ki turu sëñ Fàllu ñu suñu adiya xeeb ko lool di la ko jox ñuy indi ci enveloppe bi lu toll ci fukki million ak fukki tonu ceeb Mbàkke di ki tuub di ci jéggulu jox la ko addiye ki turu fondation bi nga defal ko ko ci màggal gi loolu la soxna si waxoon nañ la ko wax jot la ko waaye lépp di ànd ak tuub ak jéggulu ndax yow Mbàkke kenn mën laa fay sa taxawaay rafet na lool ci soxna si sa taxawaay rafet lool ci fondation bi lépp lu ñu am rek Mbàkke lu ñu mën rek lépp yow la kon lépp ñu ngi la koy delloo di la sant di la gërëm di la ñaanal fi lool te di sàkku ci yow it nga ñaanal baax a baax soxna si wax ko sax wax ju yàqu la ndax xam nañ ne soxna si mooy yow yow yaay moom Mbàkke ñu ngi jéggalu waruñoo toog sa kanam di yëkkati benn kàddu dafa fekk ne yow yaa ñu jox ndigal ñu yëkkati kàddu waaye ñu ngi koy tuub di ko jéggalu ndax sa kanam waruñu yëkkati benn kàddu ndax ñun ay taaliba dong lañ di say ndaw di say di déglu sa ndigal rek saa su ne ñu ngi jéggalu di nuyu mbooloo mépp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa di tuub di jéggalu mbokk yi sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nee na mi ngi jël ab nuyoo bu baax a baax di leen ko delloo yéen Cheikh Mahamadul faadal di ko teg ci loxol Cheikh Mahamadul faadal mii ak mbooleem nag njabootuk boppam gii mu àndal ñépp ñii di say rak ñii di say sang baa ñuy say jaam muy sëñ Muntaxa mii di sëñ Modou Moustapha Falilou ak sëriñ Abo Mbàkke mii moom sëñ Basiiru Moor ak sëriñ Jiili moom sëriñ Moustapha moom sëñ Abdul Asis ak sëriñ Seex job kokki mi toog di leen yóbbante nag ab nuyoo bu baax akob siyaare akok cant ak ngërëm jëme ko nag ci soxna baali nee na moom Cheikh Mahamadul Bachir matul seere ci soxna baali ndax digganteem ak moom fi mu àgg day mel ne bu ko dee sant day wëlbatiku di sant boppam waaye nag lii sëriñ Seex Joob wax léegi moo ci nekk nit bu defee lu baax dañ ko war a sant nag ba ñépp dégg ko nee na cant gi nag ci yéen ñii la koy tàmbalee ndax seenub taxawaay ci soxna Bali ak seenug jàppale it soxna baali taxawaay bii ngeen koy taxaw ak jàppale gi nee na ñoom ñii la waroon muy Cheikh Mouhamadul Fadel nee na ñi ngi lay sant bu baax nee na sa digganteeg soxna baali yàgg na ab diggante bu demee bay bëgg a mat ñeen fukki at ku ko génne ci sunug dund la ca des du bari te lépp rafet nag la nga jàppoon ci moom démb moom rekk nga jàpp ci moom tey nekk doomam di ko wettili di ko jàppale te muy dëgg nag ci yow nee na loolu daal ñi nga xam ne mi ngi la ci seereel ak cantam di la xam ne saa yu la séenee ci kanam am xelam day gën a dal fu la séenee rek ci kanam soxna Bali xam na ni nga àndeek moom nee na woote wut ak doom ju soxna Bali jur kon nag ñi ngi lay ñaanal ci barkeb Serigne Touba yàlla nga ko gën a man yàgg koo taxaw te li nga koy def lépp nag nga daje ci nag ak sa ngërëmul maam Serigne Touba Serigne Abo mu ne nee ngi lay sant bu baax ndax gis nañ sa taxawaay xasida yi ak ci njàngalem mbirum sëriñ Touba ak di ko gën a leeral fa kenn ku nekk ak fa la sëriñ Touba liggéeyloo sëriñ Muntaxa mi itam yàlla da koo dogal nag muy ku baax sëriñ Basiiru nee na amoon ci ak cofeel bu yàgg nee na loolu yàgg na lool ëpp na ñaar fukki at te boobaak léegi dara soppiku ci ngay nit ku yiw ku baax koo am ak taalibe sëriñ jiili mii nag moom yàlla def na bi soxna baali taxawalee fondation bi sëriñ jiili sëñ Basiiru nee na moo la boole woon ak moom kon nag li koy jàppale lépp yëg na ko te moom mii nga ko defal kon yàlla nga ci daje ak ngërëmul sëriñ Tuubaa nee na muy jeexale ci sëriñ Seex Jóob di la santaat bu baax ndax yow jàmbaar dëgg nga doo sonn doo tàyyi guddi ak bëccëg waxtu wu ne fépp foo xam ne doom war na faa féete waajuram ab taalibe war faa féete ab sëriñam taxawe nga ko soxna Bali ca dara di su ci tëj sa kër bàyyi say gan lépp ngir bëgg mbirum soxna baali jag rek loolu nag na nga xam ne defaloo ko soxna baali de sëñ Touba nga koy defal te sëriñ Touba noon na ku bàyyi sa bopp ku bàyyi sa jëmm ne ci man ma wuutu la ci sa jëmm te képp koo xam ne wuutu naa la ci sa jëmm danaa fa xam loo fa xamut man fa mën loo fa mënut kon daal na la wóor ne li nga bàyyi sa bopp ngir sëñ tubaa sëriñ tubaa moo la moo la ko ëpp ci dana la ko fay nee na ñoom mënuñoo fay kenn sëriñ Modou Moustapha sëriñ tubaa waxoon na ko ne ko Mouhamadul Moustapha taalibe yi dañoo mel ni ay mbuus li ma leen def loo ak ci mbuus gi mooy wulli ak raxas ko ba mu set waaye lañuy def ci biir mbuus ga nag maa ko ciy def muy pajug ajo sëñ tubaa rek a ko yor waaye nag ñoom ñii de luñ leen defal sëñ tubaa rek a tax te sëriñ sooy bu Mbàkke daana wax ne te la taxoon mu wax ko it nag illa la woon mu ne sëriñ bu mag de noon na ne noonu la daan wooye sëriñ tubaa sëriñ bu mag daana wax ne ku teral lu bokk ci man yàlla teral la ba faw waaye safaan ba it nag naka noonu yàlla na ci yàlla musal na ngeen xam ne daal bu ak cant doon weesu ak cant sant nañ la ko bu baax jeexal nag soxna Bali moom ni mu ko waxe woon ci njalbeen gi mëtut ci moom seere waaye lii muy bëgg a wax daf koy wax képp te yàlla tax sëriñ Bachirou nee na mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal cant gi ak ngërëm li nag ci jëfam rekk laa ko teg ndax yàlla boole na leen lu yàgg waaye ni mu ko jàppe nim ko jàppe moom soxna Bali moom sëñ Basiru nee na moom àggut foofa day mujj sax am ci diggantee moom ak kersa ndax lépp lum xalaat moom soxna baali rek na bëggu sëñ Basiru la wala ndamama da cay xeex bu doon mbirum boppam wóor na ma ne fam cay àgg du ca àgg loolu nag kenn mënu koo fay cofeel gi mu am ci moom diggante wayjur ak doom gi gën a jege sax mën na caa bañ a àgg lépp lu mu dégg ci sëñ Basiiru duutu am jàmm nee na mën naa fanaanee xoole ba bët set wicc ngir jëmmi sëñ Basiiru te lii ma wax da koo def ay yoon yoo xam ne benn bu ma ci fàttaliku rek mu doy ma sëkk kon nag sunu cant ci moom am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem xanaa di la ñaanal nag ci sëñ Tuubaa te xam na nag yow soxna Bali boroom taw feex nga de cër bii nga am itam sëriñ Tuubaa moo la ko joxal boppam te it mën na maa seere positif bi na ci yow ndax bëggoo dara yàqu bëgg nga sagub sëriñ Muntaxa lool bëgg nga sago bi yoon wi lool sa pësteef ci sëñ Tuba lépp loo dégg ci yoon wi dootoo am jàmm kum gis nga tumuraanke walla nga ne ci jaaxle dana sol aw dàllam ba fexe ba tàggale la ak loola képp kum gis sax nga foog ci moom lu bokkut ak la am jaral na ko nag mu déplacé wu ñëw ba sa kër jiital la ënd la ci sëñ Basiiru te nee na loolu lim ci def mënu koo wàññi guddeeg bëccëg comme xam ne soppeeb ba siiru nga mu dugal la ci biir xolam comme xam ne jàppe woo ko noona it boo ko jàppoon it moom du la jàpp kon loolu moom fi mu àgg ci moom mu ne su ko weesu mu wëlbatikuwaat nag sunu yaakaar di Cheikh Mamadul Muntaxa boolewaat ko ak moom te booba nekk gut sëñ Tuubaa boolewaat ko ak moom boole gu sax ba ci kanam sëriñ Touba loolu képp doyoon na ko sëkk buñ jaarutoon fenn loolu doy na ko sëkk teraanga ji nga xam ne indi ngeen ko ci turu fondation bi xanaa da koo def mu fés rek waaye ba safar duggagut ba bisub tey bis bu yàlla sàkk dana fi indi lu jege fukki bool ca bu dara xewutit noonu la koy defee kon loolu teraanga jooju buñ ko doon xool képp duñ xam nu mu kon loolu ci la dëkk kon nag dañ koy ñaanal lii nga xam ne addiye la addiye sëñ Tuubaa la ndax moom addiyaam sañu koo jël lii addiye sëñ la kon ñoo ngi ko koy fas yéenee dugalal ci biir liggéeyub sëñ Tuubaa bi te di ko ñaanal nag ci barkeb sëñ Tuubaa Pastef bi mu ci am ndax li war soxna Baali bari na ndax mi ngi séddale fépp ci dëkk bi ku jaaxle dem ci moom kon loolu dayoon na ko sëkk lii moom day luñ la jox di la ko doxloo sëñ Touba kenn ñi ñemewu ko gàllankoor waaye waratu ko ndax la muy def moog li ñoo yam kepp waaye kon ñi ngi koy ñaanal li muy yéene ci fondation bi nga xam ne fondation bi moom ba àddunay tukki moom dafay des yàlla na ko ko Serigne Touba nangul mu bokk ci fondation yi nga xam ne aw day jolli ba faw te lépp nag mu daje ci ak ngërëmul Sëñ Touba wasalaamualeykum wa rahmatullah salaatu llazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala maahin maal absa wa safar